alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan aouzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwani wa tamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiallahu taala an cheikhina wa wasilatina maulana cheikh alxadim wa an qudwatina alazim maam cheikh ibrahima fall babil muridin wa baad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur yu Touba TV ci réew meeg ci bitim réew ci gox yu feccanti ko nu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi tàmbalee sunu kàddu yépp nag ci sant yàlla ak tuubal ko ak toroxlu ci ronam di ko xamal ni moom rekk mooy buur boo xam ni jaamu ko dinañu jural njariñ ñàkk koo jaamu di jural lor di ñaan mu jullil te sërmalal ñu ci ngën gi mbindéef sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam dolli ko teddange ak mucc def ko ci njabootu boppam def ko ci ay àndandoom waaye def ko tam ci jëwrinam ja buntam ba sunu yaakaar tayuk ëllëg tey ak ëllëg mawlaana Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul yàlla nañu ko yàlla fayal naka noonu mbokk yi nu ngi ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mi nga xam ni moonu jàngal ak taalibe mooy buntu kër Serigne Touba mësuta génn xool kenn ko dul sëriñ Touba ci dundam gépp may wax maa ngi koy wax ci waxtaan yu bari Seexul Xaddim mës naa laaj mag ñi ni leen nan ngeen di mennum xel mag ñi daal ni ko menn xel de Mbàkke nin ko xamee ci baati wolof nu koy firee koo xam ni benn bët ba mooy gis donte day xool ci ñaar yépp benn ba rek kay gis kooku mennum xel la tudd Sëriñ Tuubaa daal di muñ ñi leen su beneen bët ba demee ba gisatul nag kon nu muy tudd ñu ni tekk mu ni bu leen fireetee noonu mennum xel mu ni mennum xel bu leen ko laajatee mooy kan ni leen Ibra mii sama Ibra mii ndax maam seex Ibra Faal ba ma xamee léegi bëtam xoolul kenn ko dul man Sëriñ Tuubaa kon moom mii mooy menn xel xelam jàppul kenn ku dul man Serigne Touba kon jëmm jooj ji mu ngi ñaanal maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridine yàlla na yàlla dolli teddangeem ak muccam dolli ko xéewal gërëm ko moom mi nga xam mooy buntu yoon wépp waaye di ñaanal Cheikh Sidil Muxtar Mbakke alxalifatul am li taifatil muridiya yàlla na yàlla watt ko yàlla na yàlla sàmm ko ba li mu nësër fas yéene ko liggéeyal lislaam bëgg koo liggéeyal yoonu murit wépp ci kër maamam ju tedd ci Cheikh Mat Bamba yàlla na ci am lu féete kaw njortam te ànd kook taaliba yépp gestoo gis leen di ñaanal jëwrinam jii ci dakaar di borom bërëb bii nuy yëngoo di alaaji Mbàkke yu fay yal na yàlla dolli ko xéewal yàlla na yàlla dolli ko sutura ci barke Serigne Touba di nuyu mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi ànd ak nun di jiital ci nuyoo bi nag sunu bunt ci kër Serigne Touba di Serigne Amzatu Mbàkke ibnu Serigne Chouaib yàlla na yàlla kàttanal ko te defal ko ngërëmal seexul xaddim daa iman mbokk yi nu ngi nuyu béréb bi di nuyu ko mel ni Cheikh Balla sàmb waaye di nuyu ko mel ni directeur bi des programmes muy Serigne Am fay jaar ci ñoom sëñ Abdoulaye Diop dongal donga yi jaar ci ñi fi yëngoo ñépp nag borom xam-xam yi yi fi tasaare xam-xam waaye ñi nga xam ñoo yor régie bi ñi nga xam ñooy maan yi di fexe ba image bi leer ku mel ni Pape Omar Diop sëñ Abdoul Khader Ndiaye di téyel ni image ba mu leer waaye di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci béréb bii di Touba TV di ñaan yàlla jëmale la kanam te sàmm la mbokk yi xam ngeen ni nag ñu ngi dëgmal màggal gu mag a mag muy màggalu soxna si nga xam ni moo indil Cheikhul soxna si nga xam ni mat na ndey ku ne soxna si nga xam ni Serigne Touba nee na ku ma liggéeyal yàlla fay la yanant bi fay la ma fay la waaye ku liggéeyal soxna si nag yàlla dalay fay yanant bi fay la ma fay la soxna si fay la ndax am na fay. soxna su tedd soosu di soxna maam Mariyaama Buso ñu gën koo miin ci soxna jaariyatullahi radiallahu anha di wéyjuru Cheikh Mat Bamba xaadimu rasul mi nga xam ni moo jiitu góor yàlla yépp waaye wéyjuram woowu tamit jiitu wéyjur yépp ndax jiitu gu mu jiitu wéyjur yi moo tax mu indi ko toll ni Sëriñ Tuuba lu bëgg a waxtaan tey jii soxna su tedd soosi di soxna maam Mariyaama Buso borom poroxaan borom màggal gi jigéen ci dun yaa sangu jigéen ñi ci biir yaa jaaratulaay jigéen ñi ci biir yaa jaaratulaay maam jaara sangu jigéen ñi ci biir yaa jaaratulaay jigéen ñi ci biir yaa jaaratulaay Mariama Bousso ñu gën ko miin ci maam jaara Bousso mi ngi gane àdduna ci atum junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ci atum gàddaay ga bu ñu ko dëppalee ak jamono mi ngi dëppoo ci atu sëriñ Serigne Mouhamadou Bousso ak Soxna Sawaalo ñooy ay waajuram ñaari waajuram yooyu yu tedd yooyu ñoo ko yar mu teel a mokkal nag alxuraan lool ci fukki atam bi muy am fukki at ak juróom-ñeent dajale na mboolem xeetu science religieuse théologie ak mbootu xam-xam yi góor yàlla yi daan jàng ci ñeent fukki at. ci ñaar fukki atam ci zaayir mokkal na yoonu sufiyanke ci ndimbalu yàlla mu jeexal boppam ci sellal ruuxam ba am nafsun kaamila mu jël julli woor ak liggéey def leen ñuy ay wéttalam jamono bu ne ak fu mu toll mi ngi wéy ci ndigalu borom bi ci lu ko mën a may ngërëm daan moytu lépp lu amul njariñ lii lépp nag texewu ko woon matal li ko wax ci biir këram ak digganteem ak ay dëkkaaleem borom poroxaan Euh, dogal ba ñëw ci moom ñu dénk ko Maam Mor Sali euh, ci xalaatu mbokkam daaraam ma Soxna Anta Njaay di way juru borom gaawaan ndax xar baaxam yu yaatu ya mu liggéey fa lu rëy am fa ñeenti bant di jàpp ci magi mag di Maam Mor Jaara euh, Sëriñ Abibulaa ak Soxna yi ñoom dañoo teel a ñibbi mu tëjee ko nag ki nga xam ne moo ñu fàkkal yoonu murit ki seyal boppam ci rasulilaay sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu réy bii nag des ci bopp yi mu di rekk sàkket ba mu fanaane woon doon fa tawte fexe woon na ba dencal sëriñ bi ay kiraamam ci bi muy tuut tànk am na garaadu jaariyatulaa di ki dëkkaale ak boroomam ay nelaw meyewu ko naafila yaa ko waral lu ñu ko tagg doyul ndax dund gaa barkeel mënuma wax lépp ci ku yaatu kii ku màndu kii ku tabe kii ku muñ kii ku dëggu kii boroom dund gu gàtt gi te barkeel mooy ki am benn dëkk benn màggal benn juma ca Poroxaar di ci ñaanal nag ki nga xam ne mooy sunu jëwrin ci moom di sëriñ mustafa basiiru Mbacké yàlla na ko yàlla dolli ay leer di ñaanal sëñ Muntaxa Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ñaanal sëñ Abdou Akim Mbacké borom fulku bi yàlla dolli ko ay leer ak seen njaboot yépp jërë jëf. xam ngeen nag dañuy wax ci xam-xam ni soo bëggee waxtaanee kilifa faw nga waxtaan ñetti jiim ci moom. génn jiim ji mooy juddoom ndax juddu yàlla da ko bàyyi xel lool ci nit beneen jiim ji mooy jikkoom jikko la taggee yanant bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yow yanant bi daal la in wa innaka la ala xuluqin azimin giñ naa man yàlla ni yaa féete kaw ñépp jikko yu rafet waaye yanant bi mu ñëwee tamit alayhi salaatu salaam li mu waxal boppam mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi man daal dikk naa man sayyiduna muhammad alayhi salaatu salaam ngir mottali si jikko yu rafet yi moo gën ñëpp jikko kon jikko ku bëgg a waxtaane kilifa faaw nga jaar ci jikkoom dinañ waxtaane jeneen jiim ji ci jikko yi soxna Maam Mariyaama Buso jiim ju mujj ji nag ñu waxtaan ci ay jëfam ndax jëfam yu rëy yooyu indil nu ko toll ni Cheikhul Khadim da cee bokk jëfam yu rëy yooyu am màggal gu toll ni màggalu poroxaan nga xam mooy génn jigéen ko waral màggal gi da cee bokk jëfam yu rëy yooyu dund 33 ans turam mënta fay ñépp di ko tudd daf cee bokk kon dinañ dikk ci loolu ak yéen mbokk yi yàlla na yàlla may dégg ak topp bala nu waxtaan nag kon ñu tàmbalee juddu bi xam ngeen ni moom soxna ma Mariama Bousso sët la ci sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam te dañuy wax ni ku ñu tagg ban la rek bokk nga ci surafaaw yu sërif yi kooku tagg fa la ndax yanant bi gën ñëpp yanant bi ku laal ci moom rek da nga wuuteeg ñëpp ay jikko yu wuuteeg ñëpp ak mbaax ndax lu jiitu moom Mustafa alayhi salaatu wa di ñëw sax ay maamam. ñoom ñëpp yàlla dee na tànn boo ko xoolee ca maam yu tedd ya mel ni mudar ku mel ni adnaan ku mel ni ilyasin ku mel ni eh, kinaanata ku mel ni xuzayma xool ci maam yi yananti boobu ba keroog nga ci ki ñuy wax saybat alhamdi muy abdul muttalib ñu koy woowee borom bi jaaw bi ñu gërëm bi say saybat alhamdi ndax loolu moo indi tur yi dafa gane àdduna indiwaale bi jaaw bi jaaw bi rafet lool di briller ñu naan ko say saybat alhamdi kii mooy borom bi jaaw bi ñu approuvé borom bijjaaw bi nu gërëm ndax saybat alhamdi moom juddoowul màkka moom ngi juddoo yasriba fi ñuy wax médina ndax ci cosaan bu ñu delloo ci taarix ci islam euh, yasriba moom lañ doon woowee médina waaw même fii sax ci Dakar médina gii yasriba lañ ko njëkkoon di woowe dégg naa ci mag mu maandu mu ni Seydi Alaaji Malik moo wax nanu ko changé di ko woowe ma Medina ndax yasri ba bañ ko tuddee ci alquran ci euh, saaru laxzaab laa maqaama lakkum la leen yàlla wax yaa ahlal yasriba laa maqaama lakum waaw kon moo tax tur wi am solo ñu tudde ko Medina yasriba boobi nag di Medina xam ngeen ni fa la Abdul Muttalib feeñe woon mi nga xam ne moo jur Abdullahi mu jur Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci gàttal wax nañu ni dafa am euh, baayam ba Haasim ku nekk xam na ko boo demee ci téere boobu nga xam téere mawlid la ñu ci woy yanant bi te Ibnu Muhayib bind ko ibnu muhayib dafa wax ca biir nii dee nga euh, afirus li man bil hashimi yi yu sabbahu waaw ndax am na kenn ci yanantu yi seen groupe bi ñoom ñépp kun ci mën a gam-gam leen teeg kii nga xam ni ka ko jur ka ko jur hashim la tudd kon hashim moomu la ci jublu woon hashim nag da daan def commerce ku fonkoon luuma yi ci màkka la woon daa ci dem wax nañu dafa am bis mu jóge màkkatal mukarram daal di dem ca dëkk ba ñuy wax yasri ba di medina amoon luuma bu mag bu fa am ba mu fa ñëwee mu gis fa soxna su tudd Salma mbëggeel daal di tàbbi ci xolam mu bëgg soxna si mu dem labat ko ci ay mbokkam booba lislaam ñëwagul ndax ñooñu ñooy maam ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam waaye bi mu demee daal di dugg ca kër soxna sa labat ko waxtaan ak ay mbokkam ñu may ko ko biñ ko ko mayee mu nekk fa fukki fan ak juróom guerre daal di am ca dëkk booba di Yasriba te ci ngor ngor nanguwul woon laata lislaam di ñëw nga dem ci ab dëkk xare am fa ngay ñibbi déedéet da ngay toog rek ba ci xare ba jeex booy dee nga dee waaye loolu la ngor nangu woon ba nga xamee ni moom dem na fa moom saybat alhamdi euh, moom xësim xësim ba mu fa demee guerre am fa mu ne ca xeex ba di xeex ba far fa faatu fukki fan ak juróom nag la fa jot a def dee ca guerre booba fekk na takkoon na salma ndeke bi muy faatu bàyyi na kook ëmb ëmb boobu salma ëmb mooy ki ñuy wax abdul muttalib di saybat alhamdi keroog bi mu ganee àdduna nag foofu ci yasri ba wax nañ dafa indaale bijaaw bu rafet bu weex tàll ñu naan borom bijaaw bi ñu approuvé ndax liir bu tooy xipp ganew àdduna ganewaale àdduna bijaaw bu weex tàll ganewaale àdduna euh, signe moo xam ni dafa ñuul gu ko mel ne lu ñu jam ganewaale àdduna ay bëñ ganewaale àdduna sàkkara yàlla keroog ba nga xamee ne say batal xam di def na noonu dañ ko tuddee ñoom naar ya naan ko say batal xam di borom bijaaw bi ñu approuvé waaye Abdul Mutalib mooy turam nag góor gi ko di Haasim laata muy wàcc liggéey bindoon na benn testament wax ni am naa ay mbokk nag ca màkk ga ma dëkk am naa fa frère bu ñuy wax dégg nga frère bu ñuy wax euh, mutalab mutalab man ak moo bokk ndey ak baay su fekkee faatu naa tamit ni ngeen ko xamal ni boo fi amee benn doom na ñëw topp si ay tànkam jël ko bi mu faatoo yi dox ba xale boobu di soybatal xam di dem ba am juróom-ñetti at rafet lool ndax leeru yonent bi alayhi salaam moo nekk ci ñoom di ko topp mu rafet loolu nag am bis nag xale yi di fo foofu ci ba ñoom doomi euh, tubaab yi ak doomi naar yi ñoo yem ñoom seen fo daawul passé sànni ay poids ak tëb ay hauteur loolu lañ daan fooyee bi ñuy xale di jaay njàmbaar bi ñuy fo moom mu ngi am huit temps moom Saybat al-Hamdi ñu gën koo miin ci Abdul Muttalib muy fo ci ay moroomam am benn jëmm joo xam ni mu ngi dëkkoon jëmm jooju jenn jëmm joo xam mu ngi dëkkoon Màkka ñu koy wax Muxiira Muxiira nag moo doon voyage yu ñëw ba toll foofu gis xale yi di fo mu gis daal Saybatal di mii am juróom-ñetti at bu moroom yi sànnee seen pois bu sànnee moo leen di gën a sorile bu ñu tëbee bu tëbee moo leen di féete kaw moo leen gën a gaaw ci daw bu ñuy def course te ëpp leen mu koy xool ba mu yàgg mu ni man daal su ma bañu ta wax lu dul dëgg dinaa wax ni xale bali ma gis mu yéemee nee ci banni Hashim rek la mën a bokk daal di woo xale yi ni eh kaay nga wuyu ma benn xale bi fëgg dënam ni ko papa man mu ni ko déedéet ki ci des ni ko papa man mu ni déedéet papa man mu ni déedéet ba saybatal xam di jël loxoom ba teg ci dënd ba ni ko man papa mu ni ko yow kaay nga wuyu ma mu daw si ñëw mu ni ko ana noo tudd mu ni ko man saybatal xam di lañ may wooye waaye maa ngi tudd Abdul Mutalib mu ni ko yow xanaa ci banni Hashim nga bokk de mu ni waaw wax nañ ma sama baay Hashim la tuddoon dafa voyage woon ba ñëw suñu dëkk takk fi sama yaay ci laa juddu man fekkewu ma sama baay nag ndax xawuma ko waaye dégg naa màkk la dëkk mu ne ko man mii nag maa xam tiggi sa baay xam sa mbokki baay am na sax frère papa bu ñuy wax dégg nga mutalab maa moom ñoo dëkkandoo màkka mu ne ko papa dangay ngay dellu màkka mu ne ko waaw mu ne ko soo demee na nga wax mutalab moomu ne ko dëgg-dëgg moo gaaw a fàtte sama baay bi muy faatu da koo dénkoon sama mbir mu seetaan seetaana ba xawma sama néegu baay nee ko moo gaaw a fàtte bu fekkee sama baay barsàq lu mu koy lay mu daal di dem ñibbisi bi mu ñëwee ci grand place bi ñu daan toog ci màkk mu woo Mutlab ni ko yow sama mbokkaay ma gis la ba nu ñëwee mu xiira ni ko xale bi ma gis daal bu doon sama doom askan wu mu juux dinaa ko jëli yow mi gàcce ngi lay bëgg a dal kat jëma jëli sa doomu frère bi nga toog di ko seetaan mu nekk fële ci dëkk bi ba nar faa màgge du xam nii ko baayam te baayam dénkoon la mbiram soo demee barsàq loo koy wax lii la ma wax kat mu daal di am loolu yaraa nga ci li ko xarit bi wax ñëw ci grand bi mënatu la waxtaan ak moroom yi ndax xelam dem rek ci li ko xale bu ndaw bii wax tey doom ci moom mu del si ci këram defee nu ci lalam tëdd jooy ba mu neex ko mu génn soxnaam ni ko lan la da ngaa histoire ca grand place mu ni ko déedéet man kay damaa am lu ma metti rek waaye nag maa ngi defar testament damaa bëgg a dem ba jëli sama doomu frère ba fa nekk xaw ma nag ba xam dina ñëwam déet bala dama fay dee waaye lu mën a xew moom naa lijjanti sama kër bala maa dem waaye faaw ma jëli xale di jël euh, gëléem ku ñuy wax gëléemuk mbéy ci wuti yasrib ba mu ñëwee fekk ci midi xale yi fi ñu daan foye nga xam ne fa la seen yaay di jël see bu añ jotee mu ñëw fekk xale yi di fo mu gis naka la gis rek saybat alhamdi xam ne deretam la ni ñu niroo mu daal di koy fob daal koy togg ci kaw gëléem gi wuteeg moom makka bi mu dawee di dem xale yi ñoom toog di fo ba une heure jot naar yi dañuy yónni seen soxna yépp ko ne jël sa doom pour mu añ bi Salma ñëwee laaj ana saybat alhamdi moroom yépp ni ko gisuñu ko de ñun daal bi ñuy fo ba ci yàgg la am génn góor gu war euh, gëleemu mbéy moo ñëw daal di jël xale bi yóbbu ko mu ni ah mu ni waaw mu ni baax na xam naa ci mu doon bokki bàyyi la del si ci këram daal di jël seen toxor am na toxor mooy genre mbiip yoo xam ni buñ ko masaa sifle ci màkka ku ne di nga xam askan wi ci bokk bu ñu siflee njóobeen ni dem wala njaayeen yi wala mbengeen yi ba ñëwee ñu sifle ko rek képp koo xam ne bokk nga ci bànni xasim daal di ngay daw si ñëw wa bokk ci salma bokk ba ñëwee ba daje mu ni leen yéen yéen a ma bett yéen samay càmmoñ bu ma xamoon dinaa am doom muy góor ak doom ni mu neexe ma yar ko ba mu am juróom-ñetti at ngeen seetaan ba ay mbokki baayam di ko jël di ko yóbbu Màkka ngeen toog fii di ay góor bu ma bu ma doon góor ni yéen de xam nga du demee noonu ñu ni ko talal dalal rek mu def mu ni xale bi dem na ñu daal di takk nag ay gëléem daal di toppi ah mutlab moom nga xam ni supporté na doom jooji di saybat alhamdi di abdul mutalib di ko yóbbu Màkka bu ñu dàqantee ci gàttal ba ci yoon wi ca la ñu ca leen dab ca deuxième jour ba mu échangé ak ñoom ay kàddu kàddu ya ñagas ñu jàkkaarloo xeex bi daal di door mu jël saybatal xam di moomu toll ci huit ans taf ko ci dënnam jël ay fitt commencé échanger ak ñoo ñi nga xam ñooy mbokki néegi ndayam ba ñu sànnantee mu rey ci ñoom lu bari ngeen ñi désarmé daal di wëlbatiku dellu ca seen kër mu supporté xale bi daw ak moom xale bi ne ko papa takkal ma takk ma kaala ndax sama leeru jëbi foor na foor goo xam dina signalé fu nu jaar nañu neex a dab te dañuy wutiwaat renfort dab ñu mu daal di jël xale bi takkal ko kaala waaye mënu ci dara mu ne ko dañ teggi yoon wi bi ñuy dem ba deuxième jour et demi ci lañ defaat renfort dabaat leen xeex ba daal di attaqué daal di jolliwaat ba la ñu mujj ray yi mutlab moomu daal di jël abdul mutalib indiwaat ko seen néegu ndayam ba mu màggee la door a ñëw màkkatal mu karama ba mu fa ñëwee amu fa woon néegu baay néegu nday ndax dafa ñeex a ñëw moo tax ñu ko doon xas di ko ba mu ñaanoon yàlla ñaan googu mu ni su ma demee ba am fukki doom yu góor dinaa la jox kenn ki yow yàlla sante la ko ndax ñàkk naa doom bañ ma tuutil ci mag ca la yàlla nangoo ñaanam ba mu am fukki doom caat ma di abdullahi mi war a jur sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam loolu sëñ Musaa Ka bind ko ca téeréem ba tudd barzan jiw waaye gis nga la ca xew yàlla ni ko defal la nga waxoon na nga ko def muy rayal kenn ki sante ma ko mu war koo rey lépp di dal ca bañ ko lotoree ci abdullahi mi ngi war a jur yanant bi ba mu dem seeti ay kuxaan ay gisaanekat ñu ne ko mën nga koo remplacer ci ay gëléem ba def na ci lu mat téeméeri gëléem mu door a gore ca la kooku moo jur sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam ci abdullahi kon mbokk yi li ma bëgg a wax rek mooy ndeke askan wu baax day waral ñu koy topp ci say maam ku ci juddoo rek baax ndax leeru yonent bi alayhi salatu wasalaam daana topp ay leeri maamam di leen taxaw ak di leen wan ay kéemaan astama nag kon ki nga xam ne da ciy sëtu moom directement muy soxna jaariyatullahi maam mariama buso mi nu war a waxtaane xam génn ni sët la ci Muhammad alayhi dina ko leeral ba mu leer nañ ba ñu xam ni li dox digganteem ak rasulilaay ci ay maam lu leer la te lii may bëgg a leeral alaaji Mbàkke Buso mi ñépp xam alaaji Mbàkke Buso sëriñ Buso be mooy wéejuram sëñ Buso beeg maam Jaara Buso ñoo bokk ñaari wéejur yu leen jur te sëñ ma tabara Buso a leen jur sëriñ Mbàkke nag ku ne xam na xam-xamam ku nekk xam wilaayaam ndax Seydi alaaji Malik bu Tiwaawan wax na ni su fekkoon sëriñ Tuubaa demul ci géej gi sax te mu wóor ma ni alaaji Mbàkke Buso mii ma xam moom taalibeem la doy na ci man mii ma xam ni kii ku mu topp ku nekk amoo moroom ndax alaaji Mbàkke Buso musumaa gis ku ni mel ci xam-xam ci sàmm ci wilaaya ci ragal yàlla ak ci am yanant bi alaaji Mbàkke Buso moom mii nag nga xam ni sufi bu mag la woon doon aalim dégg nga doon koo xam ni xaafisul quran la woon lépp mu boole ko ci fànni xam-xam yi dafa tëdd guddi def listaxaaru boppam ni ñun de dañuy wax ñun waa Mbàkke yéeg ngu soobe ni sët nañu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi bëgg a xam nag loolu ndax wér naam wérul yow Moustapha maa ngi def tawasul ci yow yow mi gën ci mindee fi su fekkee nun danoo bokk ci yow nekk ay surafaaw nag ma ko wan ci guddik tey ma xam ni ci la ñu bokk su fekkee nag bokkunu ci yow nag ko génne ci man wan ma li tax ma xam ni bokkunu ci yow ba su ëllëgee duma bokk ci ñuy wax ni ñun ay surafaaw lañ bi mu tëddee guddi sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di takk benn buum ci ndiggam moom yanant bi takkal benn buum bi di dem ba ci ndiggu sëñ Mbàkke Buso mu gis buum boobu am lu tolloog ñeen fukki fas-fas ak juróom-ñeent lépp ay tura ci nekk tur wu nekk ba ci yanant bi mu xam ne lii mooy càllalam mu bind lépp moom alaaji Mbàkke Buso bi mu xëyee suba mu ñëw ci ki nga xam ni kenn melut ni moom lépp la xam muy seexul xat xatim mu tàllal ko càllal googu sëñ Tuubaa ni ko tigi ni lañ bokk ci rasulullahi ci sayyiduna Asan càllal googi nag moom laa la bëgg a ci mbu sóobe ba nga xam ni soxna maam mariama buso mi ñuy waxtaane sët la directement ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam moom maam mariama buso mii wéejuru sëriñ Touba ku ñuy wax sëriñ ma buso gën koo xam ci ma buso mouhamadou buso mooy wéejuram sëriñ mouhamadou buso ku ñuy wax ma tabara moo ko jur ma matabara ku ñuy wax amaat moo ko jur amaat ku ñuy wax aliyun moo ko jur aliyun ku ñuy wax ahmad mooy wéejuram ahmad ku ñuy wax abdul karim mooy waajuram Abdul Karim ku ñuy wax Saïd mooy juram Saïd ku ñuy wax sàmba moo ko jur Samba ku ñuy wax Demba moo ko jur Demba ku ñuy wax Siidiya moo ko jur Siidiya moom ku ñuy wax Aliyun moo ko jur Aliyun ku ñuy wax Siidiya moo ko jur Siidiya ku ñuy wax Ahmadu jur ko Ahmadu ku ñuy wax Ahmadu lamin mooy wee waajuram Ahmadu lamin ku ñuy wax Souleymane mooy wee waajuram Souleymane ku ñuy wax Hamdalaa mooy waajuram Hamdalaa ku ñuy wax lamin moo ko meññ Lamine ku ñuy wax Bushra mooy wéyjuram Bushra ku ñuy wax Samba moo ko jur Samba ku ñuy wax Lamine moo ko jur Lamine ku ñuy wax Abdourahman mooy wéyjuram Abdourahman Samba moo ko jur Samba moomu ku ñuy wax Abou Bakrin moo ko jur Abou Bakrin ku ñuy wax Samba moo ko jur Samba ku ñuy wax Insa moo ko jur Insa Aliyun moo ko jur Aliyun moomu ku ñuy wax Ousmane moo ko jur Ousmane ku ñuy wax Ismaila moo ko jur Ismaila ku ñuy wax Ousmane ku ñuy wax Ibrahima moo ko jur Ibrahima ku ñuy wax Ismaïla Ismaïla moom yi ku ñuy wax dégg nga euh, Souleymane mooy euh, Zakaria mooy juram Zakaria ku ñuy wax Souleymane di wejuram Souleymane Alxasan moo ko jur Alxasan Ibrahima Ibrahima Abdullahi Abdullahi ku ñuy wax Jundoon Abdullahi mooy wejuram Jundoon Abdullahi ku ñuy wax Muhammad Muhammad ku ñuy wax Abdul Qadir Jeylaani radiyallahu anhu bi ñëpp xam mu taxawal wirdu Qadiriya mooy wejuram Abdul Qadir Jeylaani musa moo ko jur. Moussa ku ñuy wax Abdullahi mooy wee weejuram Abdullahi Yaxya mooy weejuram Yaxya Muhammad moo ko jur Muhammad Daawuda moo ko jur Daawuda ku ñuy wax Moussa Aljawni moo ko jur Moussa Aljawni Abdullahi mooy wee weejuram Abdullahi Almahdi ku ñuy wax Asan Almusanna mooy weejuram Asan Almusanna Asan Asibtu mooy weejuram Asanu Sibt ku ñuy wax Fatmata bintu Rasulullahi mooy weejuram ak Aliyun Karamallahu wajhahu ku ne wax Fatmata bintu Rasulullahi ki waral mbindeef yëpp nu sàkk leen. di sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy wéjuram kon soxna maam mariama bu sa mu ngi nii 48 maam moo dox digganteem ak sayyiduna muhammad muy 49 bi mooy dox digganteem ak ki jimbali mbindeef yépp indil nu jàmm soxna mariama bu so nag di ko xam ni bi mu bokkee fu baax foofu ba noppi dafa fexe ba baax muy ku teel a wattu alquranul karim la ci ay fukki atam fekk na ko mu mokkal alquran wéejuram wu ñuy wax soxna astawaalo nga xam ne sët la ci maam maaram soxna astawaalo mbakke mooy wéejuru maam jaara buso soxna astawaalo dund na 138 ans téeméeri at ak fanweer ak juróom soxna astawaalo ñi ko xam ci taarix wax nañ ni da daan sol ay jàllaabe yaramam yépp la daan muur nekkoon koo xam ni ku mënoon alquran ba ñu bari mu leen jàngal ci epogam moo jàngal kon doomam ji di soxna maam mariyaama buso ba mu jeexal alquran ba mokkal ko mu jàngal ko fununi xam-xam yépp li dale ci luga muy lii tax nga xam baat jàngal ko naxwu lu tax nga xam grammaire jàngal ko fiq lu tax nga xam att diine jàngal ko mantix lu tax ngay xam ni ngay waxe jàngal ko bayaan lu tax ngay mën a xam ni nga leerale jàngal ko siira luy tax nga xam histoire jàngal ko issaab luy tax nga xam xam-xamu calcul jàngal na ko ba jàngal ko zuxraaf tëralinu dëkk yi jàngal ko téere xam-xam yépp benn fànn bàyyi koog moom moom wee juróom a ko jàngal ndax wéy juróom jàngalekat bu mag la woon di soxna Asta Waalo dund téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett soxna maam Mariama bu sa teel a am xam-xam lool teel a sàmm lool teel a watt lool teel a jub lool bëgg lu baax lool daan nawaa def ay nawaafil guddi gépp da koy taxaw di ko jaamu yàlla kooku mooy seexul cheikhul xaddim mi nu ko ndil sëriñ mbay jaxate radiyallahu anhu dafa wax ni jaaraa ci doomam a am ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu kuy tuba yu kuy soxna jaaraa ko gën mboolem ku sol tuba it bàmbaa ko gën fopp wax ji wér ga dem na dayo kon ni soxna jaara gëne ñépp ci jigéen ñi ni la sëriñ Tuubaa rawee ñépp ci góor ñi soxna maam Mariyaama moomu nag xam ngeen ni aw tur wi ko yàlla jox mooy Mariyaama Buso Mariyaama nag li tax ñu naan ko jaariyatullaahi jaara mooy firi dëkkaale yàlla ndax dafa teel a raw ñépp ñi mu jamonoon teel ci ragal yàlla ci njub ci sàmm ci fonk kilifa ci nangoo taxaw guddi ci wax ju rafet ci baax ci yiiw ci tabe ñi mu jamonoonteel ñépp ni kii daal neexul ba neex mais c'est la voisine de Dieu loolu moo indi baatu baatu jaaratullaahi jaariyatullaahi mooy firi la voisine de Dieu kon bi yàlla bu jigéen bi mooy firi jaariyatullaahi waaye moom soxna Mariyaama Buso la tudd at yu néewit la dund ndax fanweeri at ak ñett dong la maam jaara Buso dund ndax maam jaara Buso mu ngi gane àdduna 1833 mu ngi fi jóge 1866 kon soo xoolee 33 ans rek la dund waaye mel nii mu mel dem ba yàlla defal ko màggal bu rëy rëy rëy moom nag dañoo delloo ci alquran ndax bu ñu delloo ci alquranul karim am na saar wu yàlla tudde sootu Mariama boo jàngee saar wu ñuy wax Fatiha teg ci euh, Baqara teg ci Ali Imran teg ci Nisaa yi jàng Maïda jàng saar wu ñuy wax Lanxaam jàng Laxraaf jàng lanfaal jàng tawba jàng yunus jàng huut jàng yuusufa jàng rahbi jàng ibrahima jàng hijri jàng naxli jàng lisra'i jàng saar ñu wax sootul këxfi sootu mariyaama nga ci teg mariyaama jooju saar la woo xam ne yàlla ngi ci nettali mbiru soxna mariyaama mi meññ yenentu yàlla isa alayhi salaam di wéejuram sëriñ tuubaat wooy na ko woyu rafet mu tudd fusti bi zarfil asana soxna mariyaama bu sola ci mariyaama mi jur yenentu yàlla isa la ci woy kooku nag di turandoom alquran dafa nangu ak mbaaxam yàlla nangu mbaaxam ba wutal ko aw saar leeral ci mbiram ndax am na problème boo xam dafa posé wu ci religion bu mag boobu ñuy wax christianisme isa jaaxal leen ba nu def ko yàlla ba tax borom du wax ni da ma daati nasaara fi nabiyihimi waxkum bi ma cheikhta mat an fii fiihi wax takki mi na booy yooyu yanante yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bàyyi li nasaraan yi wax ci seen yanantu moom bu ko def yàlla waaye boo fi bàyyee def ko yàlla lu la neex ci jikko bu rafet tàggee ko yanantu yàlla muhammad kon loolu nekk nga xam ni euh, équation la bu posé wu ci biir diine ñu def yanantu yàlla isa ab yàlla def yaayam yàlla def doomam yàlla loolu la yàlla dàq wax ni inna masala isa inda allahi ka masali aadamin xalaqahu min turabin suma qaala lahu kun fa yakun sadaqallahu mu ni bu leen isa naree jaaxal ngir li mu am yaay te amul baay dellu leen ci aadama man yàlla maa sàkk aadama aadama amut yaay amut baay man mi mën a sàkk ku amut yaay ak baay te existé war naa mën a sàkk koo xam ni day am yaay te du am baay noonu la ko alxuraan waxe mu ni kon bu leen nekk loon kaa bu leen jaaxal man yàlla lu ma soob ma def ko ci kun fayakoon mu nekk mais nag bi mu amee ay mbokkam dañoo ñëw ci mariama di ko yedd ndax mariama dafa yaroo ci jàngu bi moom da daan toog yàlla daan yóbal sax ay malaaka ñu koy wàcceel ay fruits yu muy xéwloo mu nekkoon ko jigéen ju teel a sàmm yéem epogam yaroo ci jàngu Zakaria bi foo ko fekk day beru loolu nag mu def xëy suba am doom te doom ji kenn xamut baayam ndax moom amul woon borom kër waaye Isaa li tax mu wuuteeg ñëpp dafa séq ci li ñuy wax am bacharique ak am angélique li ko séq mooy diggante malaaka ak nit a ko séq ndax sunu borom dafa yebal malaaka mu suuf soufflé suufle bi mu ko soufflé daal koy wal leeru suñu borom moo tax bi Isaa juddoo nuróowut ak nit ñi kéemaan boobu ci wàcc nag moo tax ci suuratu Mariama suñu borom de leeral mbiram waskur fil kitaabi Mariama izin tabazat min ahliha makanan sharqiya mu ne fàttalikul maam Mariama bi nga xamee ni yàlla defal nañ ko kéemaan boobu ba mu dem beru ci ay mbokkam wéet la na ko fa dal yàlla ne dafa ëmb am fa doom te kenn xamul kan mooy bàyyi doomam parce que amul woon borom kër te loolu mënuñu woon ko dégg. waaye gis nga sunu borom ci kii maanaam bi mbokk yi ñëwee di ko yedd doom ji juddu di Isa moo layal yaayam doom ji juddu wax bokk na ci doom yi wax doom jooju tontul Yuusufa ca Zalixa bokk na ci waaw eh, sëñ Abibu Mbàkke rakki sëriñ Tuuba ji nekk xuru Mbàkke bokk na ci ñi nga xam dañoo juddu wax waaw kii dafa gane àdduna daal di wax ci saasi boo déggee ca biir téere ba alquran yàlla di wax ni wa atat bi qawmaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad jiti shay'an fariya ya ukhta arun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kana ummuki baghiya fa asarati ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani al wa ja'alni nabiyyan wa ja'alni mubarakan ayna ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa baran bi walidati lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika isa nga xamee ni gane mbokk yi ñëw dikkal Mariama ni ko yow bu nu jaaxal sa frère di Aaroona nit ku baax la woon yow ngay nit ku baax bokk fu baax nooy xëy di am doom joo xam ne amul baay mun leen man duma mooy yàlla xanaa day gën a dof man foo mu sa fekk jàngu laa nekk di jaamu yàlla xamewu leen ma ci caaxaan yàllaa def kéemaan ci man kay may ma doom joo xam ne amul baay ñu ne ko bu nu jomma loolu mën ta nekk isaa ni ankay daal déj déjjë toog ci diggalal bi leen mën naa nekk daal leen man mii inni abdullahi jaamu bu yàlla la aataaniyal kitaaba yàlla jox na ma téere bu tudd linjiil ñu koy wax la bible man mii kat eh, inni mubaarakun ayna maa kuntu ku yàlla barkeel samay mbir laa fu ma fi mën a nekk wa awsaani bi salaati wa zakaati maa dumtu hayya yàlla dina ma dénk ma taxawal baatam bi dina ma dénk may séddale teraangay yàlla fu mu fi mën di dunde daal ni dina ma defal borom barke ku ma laal yàlla saafara sa mbir man mii ab yanantu laa waa baran bi waalida lam yaj'al ni jabbaanu shaqiya bu leen tuumaal sama yaay setal naa ko am set wicc sama yaay mu ta def lu bon waaw daal di wax ni man mi ab yanantub yàlla laa bu yàlla na a yónni kon bu leen tuumaal sama yaay doom ju baax jooji ak nday ju baax jooji moo tax sunu borom bi mu waree yónni ki nga xam ni mooy ñëw yor xeetu yanant bépp dimbali leen war a yor leeru yanant bi ci suuf war a yor kuutaayal sunu borom nekk xalifatul ard loolu tax suñu boroom daal di tànn soxna si mu taggoon ci alxuraan tudde ko soxna Mariama indiwaat ko mu jur ci raw ci mbindeef di Seex Ahmad Bamba loolu moo waral maam Mariama moom moo dellusiwaat kële dund 33 ans kii dund 33 ans nekkoon la sainte kii nekk la sainte kële jur Isaa kii jurul jural nu Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul ndax boobu rek moo mën a indi Sëriñ Tuuba moomu nag mbaax ci moom la dëppee waaye nag baatin ci moom la dëppee jar nay wax nit ñi borom baatin la woon baatin bu mag la am ndax Sëriñ Tuuba leeral na ni. bi mu jógee ci ndar te nu jële ko fa ñoom tubaab bi indi ko dakaar dugal ko ci néeg bu lëndëm boobu muy nettali ci téeréem sëñ Tuubaa bi ma dugalee ci néeg bi guddik ajjuma nee na keroog mu ngi fekk ma woor woor laa dikkaaleel biñ ma dugalee ci néeg bi néeg bu xat la fii ci Dakar ay gobar ay rabb ay paaka lañ def ci néeg bi ma dugalee sama tànk rabba ko bëtt ba ba mu saalituma meruma ndax ci natt bi la bokk nee na néeg bu lëndëm boobu ñaari nit sax mënuñu cee dugg waxuma laa ko mel ni man ñu wax nee ma ci buux daal may ba max ci biir nee na bi ma duggee sama itte ji njëkk mooy damaa taxaw kàbbaral yàlla julli fa ñaari rakkaab benn saar yu ma jàng ci benn rakkaab ma jàng ci saaru baqara ba mu jeex faati ak baqara beneen bi faati ak ali imran bii di 285 laaya bii di 200 aaya suñ ci waree jàng naa ko ci néeg boobu nee na fa naanuma fa keroog metti na metti koo xam ne ne su ma ko xalaatee panaan bi ma def Dakar damay bëgg jël ngànnaay xeex ak tubaab bi ma fa yóbbu mu ni waaye saa bu ma xalaatee loolu yanantu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy taxaw sama wet naan bàyyi loolu jéggal leen li la yàlla dencal moo ko ëpp yow sa moo tax ma jéggal leen Serigne Touba nee na néeg boobu maa ngi leen di giñal ni yanant bi fekk na ma fa dëfal ma wax ma ni xoolal ci amsatu mi sama baay tëx ñu ko daanalee ci xóot di ko dal nga muñ nee na waaye sama wéyjur bi nga xam mat na wéyjur ku nekk ci nitu yàlla yi du soxna maam Mariama Busa fekk na ma ci néeg boobu jàpp ci samay wagg daal may bi mu wax ni ma demal nga liggéeyal yanant bi bul yoxi bul dellu ginnaaw ndax listam bépp yow lañ taxaw taxaw ci sa kanam Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kon moo leeral wilaay ak soxna si ndax bu ko manee fekk ci néeg boobu te boobu soxna si wàcc na liggéey ba mu yàgg kon kooku borom wilaaya ju mat sëkk la moo tax mu indil nu Sëriñ Tuubaa loolu it sëñ Musaa Ka radiyallahu anhu bind na ko ca wala falam bi ñuy wax jasaaw sakkuur fii yow mi jumaa lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu ya naa ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak ay rabbu ñu tëj ko foofa dem mu des fa ak rabbu mu daal di jublu xibla daal di kàbbar nee na mënta sujjóot keroog ngir tar-tar jàng fa jàng na fa ba saaru baqara ak jibril ti ci néeg ba lil quraan am na fa yaari guddi lekkul naanul lu dul ca leeri sunu borom kooka neenul nee keroog gis na sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na mu dee ko loolu dee su ko xam billaay ku weddi laajal sëriñ Mor Penda moo fekke woon waxtaan wa keroog mook Bamba kon loolu leer nañ la kon soxna bu Bousso mii ñu dëkk mal màggalam dafa nekk koo xam ni borom wilaaya bu mag la woon foo ko natt weesu nag moo tax mu indi nu sëriñ Touba euh, leneen li ci dolliku mooy am na taalibe Cheikhul Khadim wax sëñ jiiri waa daan sugu ku nekk xam na ko ku gëmoon sëriñ Touba su dina sëriñ Touba fukki doom ak benn te gisagul sëriñ Touba. xam nitu yàlla fala fala yem kuy am ay doom tifli ahmadou bamba ñu ni ko fara farasugu kuy kooku mu ni kooku la yàlla jox àdduna ak àllaaxira war koo jiite ñun ñëpp ay surgaam lanu ca kanam lay woote feeñagul waaye man dama koo teel a yëg di ko ay doomam mu tudde ni ko fukki doom ak benn sëñ jéeri waa daan sugu moomu bokk na ci ay kéemaanam bi muy jébbalu si sëriñ Tuubaa fekk na waa ëhlu badar ñi doon xeex la yanant bi ca badar ñëwoon njaareem di naan ci teen boobu nga xam dañ koo gunge ci ak jébbaloo sëriñ jéeri waa daan sugu fu ne jaar na fa ak sëriñ Touba lu ne sëñ Touba defal na sëñ jéeri moom mii day bi nga xamee ne war naa wàcc liggéey te sëñ Touba yónnee ca at mooma di 1925 sëñ Touba de dafa yónnee ni alaaji Mbàkke Buso na ko jullee bu ko bu koy jullee nag ba àgg ci premier kabaram buy egg deuxième kabar na def tekk ndax soxna jaara Buso mii sama wéjur wax na ma ni suba dina fekke si jullee bi dina ñëw teewe lii de sëñ Tuubaa ko waxal boppam kon soxna jaara mi nga xam ni mu nga ci aljana di dikk fii di fekkee jullee koo xam dafa bég ci sa taxawaay ci yoon wi kooku war ngeen a xam ne ak wilaaya ci moom la dëppe eh, ba tey ci may soxna jaara Buso rek mën nañ ci wax loo xam ni sëñ Tuubaa digganteem la ak sëriñ sàmba Mbàkke ndax sëriñ Masamba Mbàkke rakk la ci sëñ Tuubaa gi sosoon ci moom rëkk nag sëñ Tuubaa wóolu ko ci lu bari daana ko maasloo daana ko jox daaju xasaayid yi mu koy génn di ko jàng ngir nu jànge ci daana ko dénk jàngaloon na ko ba moom rek a xamoon waxinu sëñ Tuubaa nit daana wax ci sëñ Tuubaa sax loo xam ni du nekk loo waxu moo koy corrigé ni ko Mbàkke daa xamul waxin waaye nii lañ ko waroon a waxee mu ne ko akazama sàmm sëñ Tuubaa ko defal lépp sëñ Tuubaa ko tudd bi mu gënee àdduna rakkale ci sëñ Tuubaa waaye taxawaayu doom la dem ba am ko kër sëñ Tuubaa di taalibe ci sëñ Tuubaa di rakk ci moom sëñ bi seexal ko def ko borom xam-xam ko ci njabootam defal ko loo xam ni moom rek la ko defal moo daan maasal sëriñ bi lu ëpp ci mbindam sëriñ sàmba moom yi de nee na am na bi seexul xaddim ni ko jox ko ay mbind ni ko nag ma maasal mbind mi mu dem di ko maasal sëriñ Touba nee na bi mu koy maas ba mbind mi guddi lool mu daal di for bët dallu ni bu subaa ma àggale ko nee na bi mu tëddee ci guddi gi mu gént dégg ak yuuxu yuuxu koo xam ni yuuxu wu foor la yuuxu woowu ne lu dul benn yuuxu doomu aadama ci àdduna mu ni bi yuuxu mi jibee benn yuuxu rek la nag dafa yuuxu benn yoon daal di dal sëñ Masamba nee na mu nekk gént gu ma yéem mu ne waaye bi ma yeewoo dama koo fàtte nee na nag ma xëy dem di ziyaare sëriñ Touba nee na bi mu ñëwee di nuyu ku tedd ki nee mu dégg sëñ Touba naan démb kenn dégg ci am yuuxu ci sa guddi bi ngay nelaw sëñ Touba di laajte lool bi mu ko laajtee sëñ Masamba ne ko ankay man day mbàkke fàtte woon naa ko sax man mii maa ko dégg dégg naa yuuxu mu ma yéem a yéem démb ci guddi waaye benn yuuxu la def sëñ Tuubaa ni kon Masamba ndax xam nga lu mu doon mu ne ko waaw wallaay xawma ko de Mbàkke wallaay xawma ko de sëñ Tuubaa ni ko Masamba loolu mooy sama taalibe yi nga xam danoo nekk fii ci njaareem tëdd fi te war a tëdd ji Tuubaa di cëru Tuubaa ñoom laa joxoon ndigal sëriñ Siréloo ko garaawa nga ko sëñ Siréloo taalibe sëñ Tuubaa la moo nekkoon sànnuusi bi sëñ Tuubaa jógee ci tukki euh, géejam gi fa la dem laata muy dem gànnaar ci atum 1903 fa la demoon laata muy dem gànnaar ca kër sëñ séréloo fa la ko weeru koor ga fekk nu koy màggal nee na mu daal di dégg mu ni ko damaa dégg daal mbàkke am yuuxu sëñ Tuubaa ni ko sëñ séréloo ma nekkoon barsaq ndax jamono bi ko sëñ Tuubaay wax lii sëñ séréloo wàccoon na liggéey mu ni ko sëñ séréloo laa woolu woon barsaq yónni woon ko pour sama taalibe yi nekk yépp njaareem te waruñoo tëdd fii Tuubaa lañu war a tëdd mu tuxalal ma leen njaareem yóbbul ma leen Tuubaa mu ni ko bi leen sëñ séréloo di yóbbu nag di yóbbu kenn par kenn daa ñëw ba ka mujj ci néew yi mu naroon koo fàtte bi mu ko naree fàtte kooku ni déggat yuuxu ko ni ko yaa ngi may fàtte mu ni ko yuuxu boobu nga dégg sëñ Masamba muuñ ni ko ah Mbàkke na ko de Touba de jar na ko sëñ Touba ni ko ëpp na ko Touba ëpp na ko ñu ni tekk ñoom ñaar sëñ Masamba nee na may xalaat ki samam xel naan soxna jaara buso mii wéjuram de kon waroon naa tëdd Touba ndax fa mu nekk sori na ko ne sëñ Touba ni siggeet ni ma Masamba ma ne ko Mbàkke muy xanaa sa xel dafa dem ci soxna sa ma ne ko waa da cee dem kay mbàkke mu ni soxna sa di mag soxna sa mag la di ni ma xanaa xamoo soxna si ëppante ak loolu fële mu nekk ca poroxaan ku fa dem boo nee fa cuun bala ngaa gestu ma fekk la fa wala mën naa am sax nga njëkk ma faa fekk ma lay xaar daal di koy wax ni ko soxna soosu kenn du moom ni ko jamono gi ñëw dina am bisu boppam mu tudd màggalu poroxaan lii de sëriñ Tuubaa ko wax ma Masamba Mbàkke kon soxna sii di soxna jaariyatullah yi kenn dul moom fi mu rawee ñëpp nag mooy gën leen a ragal yàlla gën leen ay jikko gën leen a fonk sëriñam gën leen a fonk yàlla ay ndigalam ku nekk xam na ne bi muy dugg ci néegu Maam Mor Anta Sali ñu koy jox suñuy nopp ku nekk xam na ni li xewoon ci mag ñi de mooy booy dugg sa néegu sëriñ da ngay waat da ngay xas man dey maa ngi dugg néegu sëriñ sàngam fii ngeen ma joxe dinaa fi am doom ju tollu nangam dinaa fi am doom ju tollu nangam noonu la mag ñi daa def waaye moom de bi muy dugg néegu Maam Mor Sali dafa wax nañ ma jox alxuraanul karim ci laay waxe li ma fi am nu jox ko alxuraanul karim mu ubbi ko dal ci saar ñu wax suratul ahzab maa kaana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiina wa kaana laa bi kulli sayin aliman fala toll te daxalaalu azim maam jaara bu su tuur ay xéewal mag nga ni ko bu nu jaaxal soxna mariama xanaa dangaa ñimewul fi nga jëm mu ni ñeme naa fi de aaya bii moo ma tuurloo xéewal ndax laaye bii sunu borom daf cee wax ni ab yanantu jeex na sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy mujj ci yanantu yi moo tax ma xam ni kon duma jur yanantu waaye bu fekkoon leeru yanantu bi dafa war a wàcc ci àdduna fekk ma ci àdduna fekk fi soxna Aminata mi ko jur bu dekkee mbaax ak njub ak topp yàlla mooy maye leeru yanantu bi du ma teggi mukk dem ci beneen jigéenu adduna waaye nag ndegam soxna Aminata jiwtu na ma ba indil ma indi yanantu bi kon duma am ab yanantu waaye dinaa fi liggéey di fi liggéey ba am fi doom joo xam ni su ëllëgee képp ku tudd yanantu di nga tudd sama doom defe naa léegi moom rasulullahi xaadimu rasulillahi loolu leer na nañ sëñ tuubaat bi mu jógee di liggéey yanantu bi la doon liggéeyam aju màkk gii weesu deux millions cinq cent mille ci ay musulman ñoo aju ji màkk quatre millions ñoo dem Touba te moo ne kii kat keel la doon liggéeyal kon la mu wax ni la yàlla joxoon Moustapha lépp Moustapha jox na na koo gëm ci loolu rek nga xam de c'est des faits kon ku soxna su tedde noonu liggéey lu toll noonu wax nañu tamit soxna si ko indi ci kër Maam Mor Anta ndax xam ngeen ni moom tantaama ko fa indi muy soxna Anta Ndiaye Mbacke mii wéejuru maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak sëñ Afiya ak sëñ Mbacke Anta soxna Faati Anta moo fa indi maam Jaara Buso ndax moom li ko indi ci néegu Maam Mor Anta Sali moom soxna Anta Ndiaye Mbacke ab tuur la woon rek li ñuy wax tuur ci olof mooy war a jëli soxna soxna sa daal di wor Maam Mor Anta Sali ki mu waroon a njëkk a jël dafa wor ni du fa ñëw fekk gan ñi teew moom soxna Anta Ndiaye Mbacke mu ni ndegam maa ko waroon a wàcceel soxnaam ndax noo bokk ay doomi bàyyi lanu suñu bàyyee bokk yàlla dogal soxna sa wor te man araamuma ko mën naa dugg ci néeg bi ko Maam Anta Sali di ko seetle ba mu gis soxna si ko gën a liyee ko fa dugal waaye ba mu fa duggee mbaax gi mu baax moo waral mooy seetle góor yàlla googu soxna su mu am qualité ba gis soxna Maam bu Buso muy doom ci moom mu proposé ko na ñëw ci néegu Maam Anta Sali jàppale ko ci soxna jaara bu xam naa du nu ay wujju waaye da ngay sama doom nu bokk lépp te gis la sa qualité gisuma benn jigéenu àdduna bu ko am ma yéene la sama sàngi bëgg nga ñëw fa ndax mu am doom ju ñëpp yi dégg lii de moo indi soxna maam bu Bousso kër Mamor Anta Sali ba mu fa ñëweet Mamor jaarale fa njëkk am muy magi sëñ Tuuba teg ci Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mi nu dimbali ku nekk xam na ni euh, woykat ba wax na ko ab liggéeyam mooy Mamor jaara waaye yéene ji nag mooy Bamba ab yéene moo ëpp ak pay kon maam jaara ki nga xam mooy taawam mu liggéey ko mooy maam Mor jaara ku nekk xam na ni kooka liggéey bu réyee ko may maam maam jaara bu sa borom poroxaan maam Mor jaara ku mat a xaban ko am na ku wax sëñ Tuubaa bi sëñ Njaaréem ni ko yow de dangaa ngaa sédd ñëpp waaye daa mel ni sa mag ji nga bokkal ndey ak baay da koo desee sédd li nga sédd ñeneen ñi sëñ Tuubaa ni ko tuub ko mu ni ko tuub naa ko mu ne ko li ma ko defal defaluma ko kenn li ma defal maam jaara defaluma ko kenn ndax bi may ñëw ci àdduna romb naa néegi nday ñëpp ñëw ba ci moom bokk ak moom néegu nday may ñëw ci àdduna man sëñ Tuubaa romb naa néegi nday yi ñëpp ñëw ba ci moom ma bokk ak moom néegum nday kon li ma ko defal defaluma ko kenn sëñ Tuubaa tam daana ko wax ni ko soo ma soxlaa toogal maa la war a fekk si ndax yaa ma jiitu ci soxna su tedd si sëñ Tuubaa daana ko wax magi mag moo tax noonu lañ ko daan woowee magi mag lañ ko daan woowee sëñ Tuubaa day mag raw ñëpp kon kuy magam magi mag lañ ko daan woowee sëriñ Tuubaa mës na ko wax tamit ni ko yow de Mamor Jaara war ngaa sant yàlla ndax adduna bi li muy rëy rëy yàlla kenn dongu lay déglu muy man Ahmadu lu ma bëgg yàlla def waaye li àdduna bi rëy rëy kenn lay déglu muy yow sama mag gi loo bëgg ma def kon kooku mooy taaw sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul mii di sunu yaakaar topp ca Seexul Xaadim nag nuróowut ak kenn kenn melut ni moom te soxna su tedd si ñu waxtaane moo na ko indil kon ki indil koo xam ni kenn melut ni moom war na xam ni yow kenn melut ni yow sëriñ Tuubaa mënoo koo dugal ci classe yanant déedéet mënoo koo def ab wàllu yi déedéet mënoo ko def ab sëriñ ñi ñëpp moo dafa def lu ñu deful toog na bis ci njaareem mag ñi di waxtaan mbaaxam gi di ko waxtaane naan ab yàlla la ñenn ñi naan ah man de yenantu laa ko def ab yanantu la ñenn ñi ni man de sëriñ laa ko def ab sëriñ la ndeke sëñ bi dégg na leen sëriñ bi yëngu foofu ci keesam yi ni tëll buntu ba ni ana nu ngeen may woowe mag nga di teg mu ne ana nu ngeen may woowe ana nu ngeen may woowe ñu ni teg mu ni xanaa di ngeen may wooye yàlla de am mag mu ni ko waaw waaw mu ni leen mat na ko de ba mu yàgg mu ni waaye matu ko nag ngir xul walaaw axat gi yàlla wax ni mbaadu may woowe ab yanantu mag nga ni ko waaw mu ni ah li li ngeen war a xam de mooy ab yanantu lu mës a am maa ko ko jox wala su ma ko joxulit maa ko njëkk a xam ca yàlla daane xanaa di ngeen ma woowe ab sëriñ am mag mu ni ko waaw waaw sëñ Tuubaa jàpp ca tànk ndijooram ba jàpp ca baaraamu sànq lañ jàpp ca weewa li leen sama we wii leltu we wii su ma ko jëloon dagg ko sànni ko ci digg àll mindeef buy dox ba yem ca daggetu weew yi moo gën ci yow sëriñ bu yàlla mës a sàkk yónni ko ci àdduna sama leltu weew yi moo ko gën daan ni leen àdduna bu gàtt bii jaru leen fee wax ku ma doon nag leen yàggatul bu yàlla wootee péncam di ngeen xam li ma doon wax leen ki ma doon xajagul ci àdduna ba mu ñokket di fatu am ku ni ko ca mbooloo ma ay mbàkke xanaa yow yaay cëy yow de yaay cëy sëñ Tuubaa gestu ree ni ko foofu la kon kooki di sëriñ Tuubaa ku mel ni moom mësuta am ku mel ni moom dootul am ah, sëriñ Ibrahima Diop al-Mashari dafa wax ni fatan xattu lam yasma zamanun bi mislihi walaw kasurat xiilul xulaati wa xaaluha jamono moom mësta indi ko mel ni sëñ Tuubaa du lu weesu du lu teew du luy ñëw ci ginnaaw kenn rek la woon kon nag ku mel noonu ki ni ko indil di soxna jaariyatullahi war nañoo xam mooy kan moom nag fonk yàlla mës di jëfe ndigalam fu mu toll lu yàlla tere mësu koo xool fonk sëriñam fonk ay rakkaa mës ta julli te jàppul mës da wiir ta ñaalu na ko koykat ba waxe nangoo liggéey jub roy ci nit ñi nitu yàlla ya ba mel ni mel indi nu sëriñ Tuubaa moom kat amut benn na nawle ci jigéen ñi moo tax mu am màggal ji di màggalu Poroxaan doom ji tamit amul benn nawle ci góor ñi moo tax sëriñ Touba indi nu ku tol ku tol ni soxna jaariyatullahi ndax sëriñ Touba mooy tànn fi muy jaar kon fu mu tànn jaar fa kooko amut moroom looloo ko tax yàlla may ko màggal gi fonk sëriñam nag lool ndax ku nekk dégg na xissa bu siiw boo bi ñépp di dégg ba nga xamee ne maam Mor Sali mi nga xam ni sunu maam ju tedd ja jàppaloo na ko sàkket wi ni ko téyal ma ko ma wuti buum ku ma ko takkee fekk muy xiin di bëgg a taw mu dem fàtte ko fa soxna mariyaama di fa nekk di fa nekk di fa nekk ba taw bi sóob di fa nekk ba fajar bàyyiwul bi so bi Mamor Anta Sali génnee gis ko mu taxaw mu ni ana kii kan la mu ni ko mën a soxna maam mariyaama busu looy def fii mu ni ko démb ci timiste bi muy ngelaw di xiin yaa waxoon naa la téyel sàkket bi démb ak tay nag da ngaa ñëwaatul ni ma bàyyil sañu maa bàyyi moo tax ma taxaw fi ci la xaar rek mbàkke sa ndigal keroog dani ko dégg naa li ko wax xam naa tamit ni dëgg-dëgg yaa ma topp ngir yàlla waaye maa ngi lay ñaanal ci barkeb yàlla mi nga xam ne moo tax nga topp ma ci barkeb yonent bi tax nga topp ma ci barkeb alxuraan ji may jàngale ba tax nga fonk ma su dee alxuraan rek a wér démb ci guddi ak tey li taw ci àdduna dal ko ci suuf ci ay pepp ndox maa ngi ñaan ci barkeb alxuraan yàlla na nga am doom joo xam ni ruu yi koy topp jëm àjjana dina toll noonu ci ay pepp pepp ndox yi ni mu toll ci àdduna Sëriñ Tuubaa moo tax lépp wuy si na ko wallahu yansuruni wal baaw nii fil barri wal bahri za nafin bila dararin ñe ne yàllaa ma dimbali man cheikhul xadim ndimbal goo googoo waral nag waa géej dina ma topp waa jéeri dinañ ma topp ku fi ne di nga topp sëñ Tuuba ndax man rek am njariñ yoo xam ne ku ñëw ma njariñ la te duma lor kenn kon nag soxna su tedd sii liggéey bu indi nu sëriñ Tuuba soxna saa ngoog kenn melut ni moom ku ko liggéey sëriñ Tuuba fay la mu fay la sëriñ Tuuba wax na ni soxna si ku ko liggéeyal di nga am ñeenti bay ku ma liggéeyal nag ñetti pay ngay am kon nanu topp ci Serigne Touba ay tànkam te xool soxna su tedd si lim nu liggéeyal ak lim nu indil jigéen ñi góor roy ci moom mel ni moom moom fàtt na waaye góor jigéen ñi maa ngi leen lancé benn message ñu góor góorgóorlu roy ci soxna la jigéen joo xam ni sëriñam bu waxee mu tontu ko du am mukk doom ji ñuy dégg jigéen joo xam ni du muur ay cëram du am mukk doom ju ñuy dégg jigéen joo xam ne soppi ay deram am mukk doom ju ñuy dégg jigéen joo xam ni euh, sàmmul boppam amul kersa rusul kenn du am doom ju ñuy dégg kon nañu ci bàyyi xel soxna si kat mooy seen royuwaay Sénégal nag li nu dal mooy dañu war di waxtaane suñu mag ñu baax ñii nu am di xool seeni jikko di ci copier ngir suñuy jikko rafet ndax boo nee Sénégal li fi tëdd ci nitu yàlla waaye ñoo gën a ñaaw jikko ci dëkk yi am Sénégal rek ngay fekk ku mën a wax lu dul dëgg te du ko tiitloo defu ko muy dara nga woo ko léegi téléphone allo mun la allo foo nekk mun la maa nga ndar te mu ngi géejawaay du nekk dara ci moom kon wax lu dul dëgg moom lu oyofal lu ñu oyofal la Sénégal te mu diis fa yàlla wor lu la fii te mu nekk lu diis ci yàlla te yii yëpp booy seet ci jikko yi soxna su sedd si nuy waxtaane di nga bàyyi yooyu yëpp kon wor gii nu nekke wax lu dul dëgg jigéen ñi seen yitte nekk jëw ku leen romb na wax ci yow diw ah xanaa xamoo kii kii nangam nangam nangam wax ci loo xam dara lañ ci xamul bu solee yére sax ñun da moo kii li muy def bu ma ko defoon am ko ni moom jigéen ñi kon jëw rek lañ def liggéey te yàlla dafa xaraamal jëw bañ ko lool wala yaxtub baadukum baadan a yuhibbu ahadukum an yàqula laxma aqi maytan fa karihtumuhu sootul xujuraat yàlla nee na ndax ah da ngeen di jëwante seen biir dama ko bañ bu kenn jëw moroomam daal ni ndax bëgg ngeen seen moroom nit ni yéen ngeen tiim yàppam di ko lekk mu ni kenn bëggul loolu mu ni nag bu ngeen di jëw nit yéen a ngi lekk yàppam senegal ñaata yoon la ñuy jëw par bis ñaata yoon sëriñ Touba mii nuy waxtaane ak wéy juróomu tedd wii xool ni sëñ tuubaa bañe woon jëw fekk na bis ñuy wax ci luy warul la di wax ci nit Serigne Touba nañ fi ñu toogoon di wax ci ab jàmbur nañ jël suuf sa anal ba mu an ba mu ba mu nekk ab tonne suuf dañ ko an mu jël ko këppi ko ci njaarim ca tàppaat ya dañ ko fa dem këppi ndax fi ñu doon jëwee suuf soosu xaraam na nit di ci jéggi fekk na ñuy jëw sëñ Tuubaa daal leen di tuxale foofa ne nañ gas la féete woon kaw na féete suuf la féete woon suuf féete kaw jàngloo fa mag ña ay limi kaamilu alxuraan tàll fa ay sondel ñu ngi musul yàlla jëw ji ñu fi doon jëw toog ni fii ci Jolof am ku ñëw nuyu sëriñ Tuubaa sëñ bee ngi toog mbooloo mi wër am ko ni ko asalaamu aleykum sëñ bi ni ko wa aleykum salaam mu ni ko damaa ànd sama mbokkum saalum saalum nu ñëw ba agsi fii daal di réeroo ba doon laajte ndax jaarul fii laata ko sëñ Tuubaa di tontu kenn ni walet ca mbooloo ma di tontu daal ni waaja mooy ki gàtt te ñuul mu ni ko waaw mu ni ko nee la jaar waa ji bi mu ne wëriñ sëñ Tuubaa ne ko yow mi tudd ñuulaayu jàmbur ak gàttaayu jàmbur toppaale ci soo demee bu la waa ji baalut bul ñëwaat sama kër doo am ngërëmu yàlla sama kër doo ko fi amee ndax tudd nga ñuulaayu jàmbur ak gàttaayu jàmbur te xawma xam dana ko neex gis nga ni Serigne Touba bañe jëw jitte yépp léegi jëw rek wor naxante jaayante kon nag yooyu yépp ku ci soxna su tedd si nuy waxtaane yooyu yépp du soxna si kat daa sàmmoon boppam nekk sunu référence nañ bàyyi référence ñi jéggaani ñun ñi wut référence duñu suñu référence Sénégal yéenu tardel Sénégal boo waxee Montesquieu am na ñu jàng mbiram ba réer ba moom la ñu gëm di ni muy doon defe ñii Frédéric Nietzsche ñii Hegel ñii Emmanuel Kant ñi jàng philosophie fi mu ne am na doomi Sénégal yoo xam dem nañ ba jàppe seen bopp am Hegel wala am Nietzsche wala am Kant ñële woykat kat la ñuy topp mel ni Michael Jackson mooy nekk seen itte wala mel ni Whitney Houston ñële acteur film yi seen itte fexe ba mel ni Steven Seagal ni muy solo wala nga fexe ba mel ni Rambo wala nga fexe ba mel ni Van Damme na muy mel ñële arabisants yu njëkk yi nga xam ne ñoo dëkk biir Makka ak biir Tunisie ak ñoom la ñu jéem toppandoo même comportement bëgg noo nuru suñu benn magum réew seeni téerit la ñuy jàng Ibn Kashir Abdurrahman Ibn Siyoti wala man maa ngi jàng Abdul Wahab Su'arani ñooñu daal ñooy ñi nga xam ne ñoo war a xam fii daal kenn waratu mën a xam pour ñoom ñii ni man américains yi ci laay roy suñu jeunesse bi surtout ñooy check down damay check down la sol jiital ko muy feeñ ñii nit footballeur yi laay roy bu dafalaa wato nii ma watoo ni laa wato su Neymar watoo nii ma watoo ni Neymar wato bu Messi doxee nii ma doxee nii loolu nag bu jëmee am réew kanam ñii def référence bu ñu seen référence nañu xool suñu mag ñu baax ñu nu yàlla cërale nit du xeeb ak cëram nit du cee xeeb li ko yàlla defal suñuy référence ñu ngi fii senegal boo amee soxna su mel ni soxna Mariama Bousso mu liggéey lii mu liggéey ci 33 ans indi doom joo xam ne jaaxal na adduna bépp ñëpp di ko tubaab yépp bëgg a xam œuvre sëñ Touba mooy lan télé yépp di def reportage ci moom France 3 da ciy def RFI di ci def léegi reportage TF1 di ci def ay reportage ci Serigne Touba bu màggal ñëwee ñépp naan mooy ki jaaxal àdduna koo xam ni bi mu wooteeg léegi matagul cent ans wala bu ko matee ci lay yem étonné àdduna bépp di créer ay embouteillage yu deux jours pour nit ñi bëgg a dem ci dëkkam di rassembler ay 4 millions de fidèles ñépp bëgg a xam mbiram kii daal vraiment mooy ki yéem àdduna liggéey fi loo xam ni partout dans le monde partout là dans le monde Serigne Touba œuvre mu ngi fa apparente ñëpp di ci mën a jariñ partout dans le monde nga ne fii mënoo ko def référence mënoo jéem a xool ci œuvre mënoo koo jàng xamoo dara ci say mag fi mu ne am na murit boo xam da nga koy apostrophe ci mbedd mi ni ko koo yaakaar mun la Serigne Touba nga ne ko Serigne Touba ñaari at la dund mun la noo loolu xawma ko fan la jànge nga ni loolu xawma ko nu wéy juróom bu góor tuddoon nga ni non loolu xawma ko nu maam tuddoon xawma ko te pourtant yow mi wax xamoo ko ku la waxoon tey bokku ci murit nga rey ko te jéemoo xam ci li nga yaakaar dara te noonu nga jéem a xamee lépp luy caaxaan musique bu daw ci marché bi am nga kaset bi mën nga koo déglu ba mu jeex man ko répété ni ngay def ba am xaalis kenn du la ko jàngal ni ngay def ba lekk kenn du la ko jàngal li xew ci revue yi dégg nga yi xew ci magazine yi lépp ngay liir jéem ko këru mais nag li xew ci sa magum réew mii la yàlla baaxel mënoo koo xam kon loolu lu ko gën a asaru amul kon nanu góorgóorlu jéem a xam soxna sii ndax kat génn jigéen joo xam moom la yàlla jagleel màggal gi mu nu màggal gu toll nii ci paroxaan liggéey fi 33 ans bàyyil nu fi doom ju toll nii di Serigne tooba jigéen ñëpp war nañ ko def seen bibliothèque di roy ci moom ndax suñu problème Sénégal gii mooy problème comportement Sénégal ñooy dëkk bi gën a ñaaw comportement ci suuf boo doxee ci circulation bi da ngay waaru fu neex waay taxaw fu neex waay teg nit ñuy dawale baaxul nit ñuy waxante baaxul nit ñuy comporté woo baaxul nit ñuy soloo baaxul nit ñuy fonke seen kilifa baaxul kon nag loolu day war nag di wax nit ñi lu defar seen jikko jikko yooyu nag li koy defar mooy am nga mag mu mel nii del roy ci moom mel ni moom fàtta waaye nga roy ci maam ba jaara busu ca tedde ga ca muuru ga ca bëgg alxuraan ja ca fonk sëriñam ja ca bëgg yàlla ja ca roy yanantu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ja mu nekkee woon ca wormaal kilifa ca sutura ga ca teddange ga ca dal ga yooyu yépp mooy jikko yu rafet yoo xam boo ko réew mépp amee suñu réew développé jëm ci kanam kon yàlla na nu yàlla may dégg ak topp nu góorgóorlu ci xam ni ah yàlla baaxee na nu bàyyiwunu ndax sëriñ Touba mënoon naa feeña Maroc mënoon naa feeña Égypte te boobaa naar yi doo ci jot bu feeñe woon Amérique it doo ci jot léegi nii tembe dangay dem ci biir Amérique sax dugg ci ab daayira nuyu un américain boo xam ni yaayam ak baayam yépp américain lañu nga jox ko loxo di ko wax damay bëgg a dugg fii rek ci saas la lay dàq da awuma jot damay liggéeyal sëriñ Tuuba américain moo la koy wax awuma jot damay liggéeyal sëriñ Tuuba loolu war naa nekk kàcc ci yow te nga ne fii Sénégal xamoo sëriñ Tuuba sax da ngay nuyu léegi un américain laa la wax mun la go out I have no time I'm working for Cheikh Ahmad Bamba génnal ci biti man awuma jot damay liggéeyal sëriñ Tuuba te ki la koy wax américain la juddu ci Amérique màgge ci mbiru sëriñ Tuuba ñor ko ba mu nar a defar yow nga ne fii sëriñ bi jige la lool jàmmam jii du jeex teraangaam jii du jeex mayam jii du jeex ñépp a ngi koy jéem a xam fexe woo xam dara ci sëñ Tuuba fexewoo woo roy dara ci sëñ Tuuba fexe topp sëriñ Tuuba liggéeyal kon loolu lu ko gën a nekk euh, ki amul yàlla nu yàlla may dégg ak topp ñu roy ci sëñ Tuuba sëriñ Tuuba moom dañ la dañ lay dimbali rek sa xol nangu ko waaw yàlla lay dimbali nga nangu ko dañ koy yëg am na loo xam ni euh, entendement humain mënu ci egg waaw am na lu ñuy wax métaphysique loolu entendement humain mënu ci nekk da ngay gëm rek te tax xam ne yàlla sax dañu laa laa ba fii hudan lil muttaqin waaye avant mu koy wax ne yuminuuna bil ghaybi waaw ñi nga xam dañuy gëm ci kumpa waaw yàlla ne ñu laa àndal ñuy gëm ci kumpa lépp mënoo indi la raison lu tax lii am lii am déedéet yàlla la soob mais bu mayee nit da koy nangu ku ne la la yàlla defal nga nangul ko ko bu ko defee réew mi jëm ci kanam maanaam nangu ni yàlla def sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba deesu ko xam bis penc la ñëpp di xam bu ko ñëpp xamee nag dina bari ñu am yaraanga waaw man maa ngi moom bokkoonum réew maa ngi moom ab dëkk man de moo ne daana gis ay mbokk yu ko yaakaaroon man kay damaa sànk woon rek jéem moon ko xam moom wax naa ñun jëf na ñu gis bind na ay téere bàyyi fi kon wàcce na ñun la war nag ñun ñu toppi sëriñ Touba jéem koo xam te liggéeyal ko coow lu mu bëri bëri liggéeyal sëñ Touba rek mooy affaire waaw sëñ Touba amut morom waaw nu ngi siyaar mbokk yi ànd ak ñun yépp ci émission bi ku mel ni sëñ Modou Ngom nekk fii ci kër Massar nga xam ni ku bàyyi xel émission bi di ko seetaan seen émission Fawzeyni di bu baax soxnaam soxna Yaasin Sarr moom it bu baax a baax a baax ak njaboot ko yépp waaye di siyaar bu baax sunu xarit bu ñuy wax soxna Xadi Njaay soxna Xadi Njaay madame Guèye di ko siyaar di siyaar borom këram sëñ Ousmane Guèye nekk fii Cité Fadia di sunu kóllëre di ko bëgg émission bi di ko bàyyi xel ñu ngi siyaar bu baax euh, sëriñ Xaadim Mbaw nekk daayira Mawaahibul Quddus foofu ci Pikine gaa ma ko jot maa ngi koy defal conférence ñu nit ñu baax a baax di ñu sàmm di daayira bu tege ci yoon ñu ngi koy siyaar di siyaar seen jëwriñ ci Abdoulaye Diop waaye ñu ngi siyaar bu baax a baax Pape Diop fële ci rue dix Pikine di suñu kóllëre moom it bu baax a baax di bàyyi xel émission bi sëñ Xaadim Guèye Kër masaar ñu ngi koy siyaar duñu ko fàtte benn yoon di siyaar suñu wéejur wa ajaratu njéeme ja di ñaan mu yàgg fi ci barke sëñ Fàllu mi mu wóolu te gëm ko lool di ko siyaar di siyaar njabootam di ñaan yàlla yokk seen teranga yokk seen sutura ci barke Seexul Xadim ñu ngi siyaar bu baax a baax soxna Sooda Xumma fële ca jàmmalaay sama weejuru bopp di nit ko yàlla baaxal nag ñu ko bëgg sëriñ Tuuba may woo barki démb rek naan ma damaa daanu nii daa am sa waxtaan bi ma waxoon ma koy dégluwaat nii daanu delluwaatal ma ci li nga waxoon waaw ndeysaan nga xam ko bëgg sëñ Tuuba ngoog waaw bëgg loolu sëñ Abdul Karim borom makaarimal axlaaq di siyaar sëñ Abdul Karim moom it ci taxawaay bi keroog bi mu ñëwee kër sëñ Tuuba seen mu baax moomu taxawaay bu rafet bi mu def fii ci géejawaay sagal géejawaay gépp di ñaan ci barke sëñ Fàll wéejuram ba yàlla fanam yu gudd lool mu yàgg fi te ànd ak wér nekk njariñal taalibe yépp mu ngi siyaar bu baax a baax sañ Alassane Tall Alassane Tall fii ci Sotida LSN di nit ko baax a baax waaw mu ngi fii ci Sotida ah, fasante ñun koo kóllëre di bàyyi xel émission bi sañ Alassane Tall ñu ngi lay nuyu ah, sëñ Fallou Gaye Pikine ñu ngi koy siyaar bu baax a baax fële ci Pikine tali bu bees ak soxnaam soxna Fatima taalibe Seex Pécco Cuun ñu ngi koy siyaar bu baax di ko nuyu di ko bége di siyaar bu baax ah, mbokk taalibe bu ñuy wax sëñ Ahmadou Taqiyu yu fële ca cité Fadia di suñu kóllëre di suñu xarit di bàyyi xel émission bi di ko seetaan Pape Sangoone Mbaye ñu ngi koy siyaar Baye Laay ci Géejawaay Abdou Ndiaye sama soppe maa ngi koy siyaar marché Castor ak mbokk yam fa nekkee ku mel ni sëñ Cheikh Mbacke Diaw ak mbokki taalibe yi yépp Aatu Diagne restaurant Figo maa ngi koy siyaar fële ci yoonu aéroport di ko nuyu di ñaan yàlla yokk teraangaam di siyaar bu baax a baax soxna Ummi Fall maam Jaara di suñu wéyjur di bàyyi xel émission bi ak soxna Nday Lay tali bu mag ñu ngi koy siyaar bu baax a baax ak euh, sunu wéjur ba Baye Ibrahima Diouf mu sëñ Ousmane Mbacke Nooré ni di siyaar Moussa Gassama marché Ndiarème Géejawaay Ibrahima Gadiaga caaro Thiaroy sëñ Muntaxa Mbacke ibnu Serigne Cheikh Fati Fall Mbacke mu maam Thierno borom Daaru Moxti ñu ngi koy siyaar di siyaar doomam jooju sëñ Koso Mbacke di leen siyaare bu baax a baax di siyaar waa kër sëñ Mouas Mbacke yi bu baax a baax nu ngi siyaar bu baax a baax euh, soxna Khady ak Pape Mbaye xaar yàlla ñu bàyyi xel émission bi ñoom it di ko seetaan soxna Leena Ngom fii ci Sodida nu ngi koy siyaar sëñ Ablaye Diouf Kéemaan Castor maam Thierno Kebe nu ngi koy siyaar bu baax moom it fii ci Castor oustaz Souleymane Samb sunu xarit nu ngi koy siyaar di siyaar kuréelu kenn la Serigne Touba gi nga xam ne ci laa bokk di siyaar ñoom sëñ Abdoul Aziz Kanji Abdourahmane Ndiaye ñoom Alsane Ba ñoom Mamadou seen ñoom Sànnoo si Jaxate sëñ Fallou Gueye unité 16 ñu ngi koy siyaar soxna Aïda Ly Alex Assane Mbaye ñu ngi koy siyaar ak soxna Ndiaye sëñ Abdourahman Lo sama xarit surtout sëñ daam ñu ngi koy siyaar ak soxna Roqay Njaay soxnaam di siyaar bu baax a baax nag sunu grand bu ñuy wax Ibba Seck euh, grand Ibba Seck fële ca cité Alioune Sow ko siyaar di siyaar Mbay Njaay asek naa di suñuy kóllëre di siyaar bu baax Mama Diop day xadi cité Fadia di siyaar soxna Nenne Sourang cité Fadia ak euh, soxna Batoor Sourang di nuyu mbokki taalibe yi ànd ak ñun yépp ah du ñu mën a lim ñëpp nag waaye daal ñëpp bàyyi nañ leen xel di leen siyaare bu baax a baax di béggee ci émission bii di Fawzeyni di ñaan yàlla ñu may dégg ak topp yàlla ñu jëm ci màggalu Poroxaan ci ak jàmm dikkaat ak jàmm te daje ci ngër mu soxna si kenn bañ koo wuute ci barke Cheikhul Khadim yàlla na yàlla may sutura may nu teraanga wéral yaram yi yokk xéewal yi poche yi mu def ci dara te may ñu dégg ak topp xiir ñu ci lislaam jubal nu nu ngi sant bu baax a baax sëñ Abdou Diouf mi nga xam mooy taxawu régie bi waaye di sant bu baax a baax sëñ Abdou Khader Ndiaye mi nga xam tàyyiwul benn yoon ci caméra bi di nuyu Pape Omar Diop di nuyu caméraman yi ci télé bi yépp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ba beneen émission ak Fawzeyni seen mbokk fi nekkoon Abdoulaye Diop Bichri wa salaamu aleykum wa rahmatullahi على السقال بفرود وسمن